ñu sant yàlla bu baax di julli sayyidina Muhammad di am naqar atis tiis di jëloo lépp nak suñu borom muy xalo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jale bokk julli yeb rawati de suñu bokki talibey rawati na nak keur Cheikh Mahamadul Fadal bi nga xamne Cheikh Abdoul Aziz fofu la doon liggéeyal Serigne Touba ba am ngeureumul Cheikh Mahamadul Fadal di ko siyaare it khalifa bi nga xamante bi mo fi nekkal Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh jembu ak Serigne am di xarit mi nga xamante ne bii nag gannaaw bi mu jógee ci kër sëñ Fallou ci sëñ Assane la wakkil mbiram bi fi sëñ Assane Fall jógee nag mu dem ci sëñ Cheikh soxna sëñ di fa masla di fa joxe addiye di fa di nekk nekk fa Baye Fall kon nag bu lii xewee suñu robee euh, Abdoul Aziz fii ci armée di Touba yi am nañ yaakaar bu baax ki ne liggéey bi mu doon liggéeyal Cheikh Mamadou Fadal dana ko fekk ñu koy ñaanal ak njëggal yàlla teg loxo gannaawam ci njabootam ci barke Seydina Mouhamad barke Serigne Touba barke Cheikh Modou Fall wasalaam. Cheikh Ibrahima doon na dund ak Mbaye Fall muy liggéeyal Serigne Touba. ba wàcc loolu moom yàlla yàlla taal ci barkeem la ci mën a te man ci ñi mujj bokkal ab liggéey laa bokk ci ndogoy sëñ am di ñu mujj andi mhm. am na photo bu ñu may yónnee démb ci YouTube bi noo bokkoon toog ca ker ga bi ñu indee ndogu yi saa yu ma saa ñëw ma ma toogandoo ba ba ndogu yi loolu doy na sëkk tàggatoo bu rafet yàlla ko maam Cheikh Ibra teeru ak Serigne Touba ñu dugal ko àjjana te yàlla taas na ci barkeem sëñ sëñ euh, Abdou Aziz mhm. Cheikh Ibra la waaye Cheikh Amadou Fadal la mhm. loolu ñu fi Cheikh Ibra Fall la waaye Cheikh Mamadou Fadal la muy kàddu Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Abdoul Fatah Mbacke moom Cheikh Mouhamadoul faadal dégg nga kàddu yooyu mu yëkkati muy Serigne Abdoul Aziz moom Cheikh Ibrahima la waaye Cheikh Mouhamadoul Fadal la ngi taxaw ak Serigne Khadim Mbacke moom Cheikh Abdoul Karim Makarim al Akhlaq diggante Serigne Abdoul Karim ak Serigne Abdou Aziz Fall mii ku ne xamoon diggante bi Serigne bi ginnaaw boo nuyoo ñu lay seetaan rek yenn kàddu nga mën a yëkkati sa jëmale ko ci jëmm ji nga xam ne moo fi bàyyi ko waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ok ndax xanaa dañ fee teew teewaayu boole gi nga xam ne moom lañu ñu Serigne Touba boole euh, te sëñ Aziz ginnaaw bi mu bokkee ci ëttub Cheikh Ibra suñ borom dafa dogal ne sëñ Fallou lan ko joxoon ba mu yaroo ci ëttam ko ba léppam di sëriñ Fallou sëñ Karim lu bari dox seen diggante ak moom loolu moo waraloon ñu nit ginnaaw suñ borom dafa dogal ñu bëgg Cheikh Ibra lol té diko ko xel ci lépp boole it ñu bok ci Serigne fallu munta ñak ñu ñëw ci bis bi téw ci ndax dañoo japp ne bisu la rek ak tawfiq waaw xamuñ ci mom nak mbax ak ak ak ak uh, ku am jam, ak di dox ci ci tawfiq rek waaw kay jërëjëf mbokk yi nak di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com point te bu leen faté di cloche bi